tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di libération xëy di ñu xibaar naan ñu confrontation bi nga xam ne moo doon dox diggante Ndeye Khady Ndiaye ak aji Sarr doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne maanaam fu ko waaye natt daan na koy passé maanaam waxante ñaaw ji nga xam ne moo doxoon diggante Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr ak Maître El Hadji Diouf doy na waar lool ci kanamu doyen des juges Maham Ka Adji Sarr dafa xool doyen des juges na ko Maham Ka naka solo bii nga xam ne Ndeye Khady Ndiaye moo ko mooma maanaam am na massage boo xam ne massage nuur la la tudd Massas Nuuru nag Adji Sarr nee na maanaam mooy client bi bu ñëwee nag ba tëdd daal maanaam si meeku ba set wecci boo koy maasee da koy maccaaleel ba mu nag daal di daanoo ba mu daal di éjaculer maanaam juge bi dafa mujjee jaaxle ci kàddu yii nga xam ne Adji Sarr daan na ko yëkkati maître mi nga xam ne mooy layal Adji Sarr moom tim daal jël kàddu gi daan nag bu ñu waxante dëgg bu ñu waxante dëgg Ndeye Khady Ndiaye mii caga la maanaam prostituée la Ndeye Khady Ndiaye moom tim kàddu yi El Hadj Diouf moom tim di koy daggal saaga woo xamante ni maara day taali kenn ñemewu ko wax Ndeye Khady Ndiaye daal di wax ne maanaam bu procès amee rek da way mbay ndax yor nañ ay vidéo yoo xam ne maara day taali te nag kii nga xam ne mooy aji Sarr maanaam bett naa ko ak benn député boo xam ne a APR la nekk ba tey ci biir journal bi meete El Hadj Diouf daal di wax Ndeye Khady Ndiaye yow amoo benn xarañte benn xam-xam ci lu jëm ci wàllu maase Ndeye Khady Ndiaye na ko meete El Hadj Diouf boo weddee ne mën naa maase maanaam simmee kul ci kanam doyen de ma daal di lay maase kese ba sa biir bi wàññee ko nday xadi njaay daal nay seetal lool ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéene kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas daal maanaam confrontation bi moom doyoon na waar génn xeetu doy waar goo xam ne musiba ma bokku mbalaay yéene kaay gi di Sud Quotidien askan wi nga xam ne ñooy yeewoo lu ko bëri ñoom ñoo xam ne dem démb wàcc nañ si mbedd mi ndax nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko mooy asu soxna mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam fan yii ñu génn ci hôpital régional bu Louga maanaam ñu daal leen si andil ay leeral leeral yu mat sëkk yoon nag daal di def liggéeyam jigéen ñi nga xam dañoo dëkkul lu ko ñoom nag nee nañu dañoo sonn ba maara détaal yi te nag mbir mi ci boppam dafa war a doy ñoom jigéen ñi nee nañu bu ñu demee ba wan lor nag maanaam ay jafe-jafe yu métte métte métte la ñu dund comportement yu bon yi nga xam ne ñenn ci agent de santé yor nañu ko loolee la jigéen ñi xamul lan mooy ndayam jigéen ñi dëkk Louga démb ci seen marché bi nee nañu nag ñii nga xam ne ay agent de santé lañu maanaam xaalis rek moo leen intéressé yéen kaay gi di Vox Populi kat yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu wér gi yaram gi ñoom tim dañoo mer ba maara détaal yi nee nañu sax danañu dem ci li nga xam ne mooy Sall ndax liggéeykat yi nekk ci wàllu wér-gi-yaram gi ñoom nag nee na ñu duñu nangu kenn di leen ñàkkal fayda ndax ñoom dañoo gis na jamono ji kenn wégule na kenn respecté wule na moo tax nag ñoom nee nañu alxamis ñaar fukki fa ak benn ci weeru avril la danañu daal di marsa yéene kaay gi di la sa nee na wàllu wér yaram gi jamono ji bu ñu waxantee dëgg moo nekk si ay jafe-jafe ndax ñi nga xam ne ñooy pharmacien privé yi ñoom nag nee nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu dem ab girawa ndax dañoo bëgg gouvernement bu Sénégal daal di rétablir nag ki nga xam ne mooy ay sëmbooj ay droit am nag nee na ñu tamit dañoo bëgg directeur bu département de la pharmacie ak médicament daal di tekki ndomal tànkam yéene kaay gi de la quotidien xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ndox mi jamono ji askan wi ñoo ngi dee la ko waral nag bokk na ci maanaam facture yoo xam ne dafa cher ba maara détaillé loole nag tax na ñi nga xam ne ñooy waa SONES ñoom nag nee nañu mbir mi dal danañu ci andi nag ak jubbanti maanaam danañu ko saytu danañu ko audité danañu audité écrivain bi di Ami Sow Mbaye daat nay wax ci biir journal bi di Rewmi Quotidien lu jëm ci wàllum crise des valeurs ci Sénégal ak nan la ñuy def ba di koy jubbante wax na tamit ci njàng mi ak njàngale meek gàllankoor yi nga xam ne moo ci amee yéene kaay gi wal Walf Fadjri wax ci assemblée nationale ci projet de loi bi nga xam ne jëm na nag ci modifier code électoral bi ñu doon amal ni ki démb ci assemblée nationale ngir nag yokk li nga xam ne mooy limu député yi journal bi nee na limu député yi nga xam ne bëggoon nañu koo jëlee téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yóbbu ko ba téeméer ak juróom ak juróom-ñaar daan nañu say génn ndax nag nee nañu juróom-ñaari député yi dañu koy jël ci liste nationale bi yéen a kaay gii di ñu koy fekk fa Aïda moom nag nee na député yi maanaam comportement bii nga xam ne moom la ñu yore muy comportement boo xam ne comportement bu ñaaw la Aïda Mbodj nee na loole nag moo tax député yi jamono ji tekkeetuñu dara ci butu askanu Sénégal yéen a kaay las ak Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu duwaan a kaay gii tey demi-finale la coupe Angleterre diggante Liverpool ak Manchester City